jaajëfa tey jaajëfa tey sama gars yi Mister Shake la depuis Brooklyn New York gars tey dama ñëw dafa leen benn vidéo ci Kayz Fof Macky Sall assassinat gars yi ngeen baal ma waaye sujet bii sujet bu doy la ndax fu ñu demee bay wax makki Sall dina dinañ ko rey ci nguuram bu fekkee ne bàyyiwul nguuram loolu du ay waxu caaxaan dama don seetaan kayis fof mu joxe ben xibaar te xibaar bobu sax man deggon nako dafa amone ben way jo xamne ben modou modou bo xamne dafa melne dafa takaliko ak sagom waw ndax mom ah dañ ko dafa ñibbi ci Sénégal amul xaalis amatul dara mu jaxle mu jël paka mu ne fay dem fay ray makki salla waye ba mu démé pour ray makki salla heureusement amna ay garde

li ko ci naqari mooy Macky Sall dafa rëcc Kayz foofu benn activiste la waaye wax jooju kayis ñun ay activiste lañu ñun ànd nañ ak yow ci xeex ak Sall waaye wax jooju wax jooju dafa ñaaw ñun duñu ànd ak yow ci wax jooju naan Macky Sall ah moom nouvelle boobu daal bu sañoon bu sañoon ni mu waxee daal bu soñoon Macky Sall waa ji da koy jam mu dee xam nga mi ngi naan nag Macky Sall mi ngi naan Macky Sall nguur gi si ngay deewee musuñu am président boo xam ne dafa dee ci nguur waaye nee na Macky Sall yow ci nguur gi ngay dee man kayis dama koy seetaan xam nga buy wax ci affaire bato bi bato bi nga xam ne Macky Sall daf ko jënd tuddee ko Fatick Dakar loolu yëpp man dama koy seetaan waaye nag wax dëgg tey damaa choqué wu ndax ñun lu ñu war a xam mooy ñun Ousmane Sonko la ñu àndal Ousmane Sonko la ñu bëgg mu jël nguur waaye bu koy jël na ko jël ak peuple bi tey bu fekkee ne Macky Sall dafa am lu mu def. ba comme li amoon mars am xale yëpp génn xeex ba Macky Sall daw waa Pastef daw bu boobaa ñu xam ne noonu la mënoon demee ndax Macky moo ñu tooñ peuple bi nag ne ko ñun ñoo génn pour xeex waaye ci nii ci nii nii rek ngay wax Macky Sall dinañ la rey te yow activiste nga nga nekk France dañuy bañ li dal Ousmane Sonko li Ousmane dal la ndax Ousmane Tounkara lu mel noonu la waxoon moom dafa ne woon ah, moom dee na ba pare deena ba pare Macky Sall na pare ñoom ñoom euh, Antoine Diom mais Ousmane Tounkara sax bamuy wax bamuy wax xam nga ñëpp comprendre nañ xeyna bamuy wax ba euh, instant yu dëkk bi tang na xamatul fu mu ne mais Ousmane Sonko Ousmane Tounkara ñu ne bu génné dina wax genre wax yoyu ñun li ñuy wax kay foofu moy ñun on a besoin de toi gis nga Ousmane Tounkara trois mois yi mu tok kenn déggu ko vraiment loolu dafa wañi suñu doole xam nga. kon Kayz Macky Sall ñun bëgguñu ñu rey ko ci nguuram soxlawul ko soxlawul ñu koy rey parce que boo ko reyee armée bi di ci profité comme li ñu waxee xam nga wala waa APR mën nañ ci profité guerre am ñu jéem a def dara Sonko wala ñu takkal Sonko ne moom la comprendre nga même bu fekkee ne Macky Sall sax dafay génn di dem ci euh, nu mu tuddati comme fu muy demee Koungheul ñu koy sànni ay xeer yooyu yëpp sax ñun bu ñu sañoon du am bu leen neexee ngeen sol seen morceau yu xonq comme Macky Sall moom nee na du gis moo noor bu xonk bu la neexee ngeen taxaw ngeen yuuxu sonko sonko comme booy Medina bàyyi ni ñuy def waaye Kanta nga toog di wax naan Macky Sall di ko wax ne yow dañ ci sa nguur bi ngay deewee comprendre te yow nga nekk activiste Maty Trois di nga ko may lu mu wax ni comprendre nga ñun dañuy bañ rek fa kay gars boole la comme ni ñu def Ousmane Tounkara mu indil la ay problème Macky Sall ñëpp xam nañ ne Sénégal yëpp ko jëppi ñëpp xam nañ ne dafa sànq Sénégal ba ñu dee dafa ñoo rey ba ñu dee te bu buñ ko fi bàyyee fii ak 2024 billaahi wallaahi taalaahi dinañu dinañu rey ba ñu dee mais neen rek lañu ñu mën a def pour jëlee ko fi mooy affaire comme affaire ñaari tuuti ni ñu ci génnee peuple bi génn marche yi dañu war a génn xale yi ñu jàpp ñu ñu fexe ñu bàyyi leen ñu continuer di ko teg pression mais pas di ko jéem a fexal naan dañ koy jéem a rey ndax boo ko reyee ñun ñun Sénégal xamuñu loolu xamuñu ay rey comprendre kon Kaïs on veut que tu te ressaisisses nous, ñoo la gën a contre Macky Sall foofu Macky Sall daf ñoo rey ba ñu dee Sénégal dara amatu fa xale yi mu ana liggéey moo xam daf koy def ci mois de mai bi 65000 employés ana mu day diggee rek day diggee waaye du def dara dara dara nous, moom ak njabootam xam nga ñun yéenewuñ leen nous, lu bon nañu fexe rek ba bu mu fi wax waxu troisième mandat bu fi waxee nag waxu troisième mandat peuple bi génn nit ñi deewaat fi bu boobaa nag lu ko dal. na xam ne moom moo ko teg boppam ndax gis nga bii passé personnes 15 xale dee ci waye ñun dal duñu wax ne dañ lay ray déedéet dañ lay wax rek ne e mandat du fi am kon Kayz na nga xol ni ngay waxaatee ñun sa mbokk activiste ñun ñu ngi lay suivre di la encouragé guerrier nga mais soxlawul ngay wax wax yoyu jaajëf gars like laaj leen partagé leen abonné leen mr Shake la jaajëf ba ci kanam